waye ni no wañu no lan toge leen toogee Tami fa voilà ñu def xam nga ko Tami Gueye yaa nga ci groupe mag ba. ma nga ci groupe mag ba. wa waaw. mais sama mburu rek ndekki. Mhm. ñi ñoo kër ma jooje. waaw. dekk sa cosaan dafa neex. waaw. tax sama na dal ma koy fu ñu ne rek ma dal le ne dal ma dal. lo deug la. tax maam ma jojay seen maam. Mhm. lu baax la do liggéey na mako yalla fay ci sëtam yi. amin waay. Ah? waaw. ma nga ca yow ma xeer waaye xolam sedd na. bilaay walaay maam ma joojaay ree na bég na. <laughs> yow Siri ya Siri Ndiaga jaya. yëpp. ñëw ci dëkk Maaw rek dëkk Adama nag dëkk Kër yow kontaan nañ ah Ndeye Gningue xool ma Siri yow lay def Siri. xanaa neex rek ñëw rek xol ba mbaax rek. ñëw rek du sama dëkk maam rek. loolu neex na. ana Binta Ndiaye. waaye yéen Binta Ndiaye yow gisuma ah taxaw ci sama bisum maam def ba baax rek nag. ah bis bi rek nag ba ngoon jot. kontaan nañ yow nooy def ni yow. xanaa fas def ba baax rek. ñaan hmm. yàlla yàlla may ñu gudd fan ak wér gu yaram. amiin. parce que yéene defar ba mu baax. Hmm. dalal suñuy gan. siyaare suñuy maam saafonteeg suñuy mbokk yal nañ ko teew te xale yi jiite liggéey bi yéen ñi liggéey bi yal na leen yàlla may fan bu gudd ak wér gi te Mansour Diagne mi nga xamante ne moom itam ci moom la jógee yal na ko yàlla defal ay xéewal defal ko gudd fan bu ànd ak wér gi yaram kontaan nañ torop ba ci kanam yow moto jox ko noo gisee liggéey bi xanaa kontaan rek man bu ne la ñoom ma jooj naa am ñetti ma nelaw ndax bëgg a dem kër ma jooja rek. Ah. bëgg sama cosaan rek. bëgg kër ma jooja rek. bëgg bokk kër ma jooj ba kër ma benn bopp di benn baat. Mm-hmm. dafa lu xale wax. lu mag wax xale du ko wedd benn baat lañ yàlla nañ ko yàgg a ànd yàlla nañ fi yàgg a ñëw nan ñu dara suñu gan dara suñu gan rek nag amin waay kontaan lool berne rek berne rek waaye yéen yéen ni ngeen doxalee kër ma jëyee gi yéen nii ah yéen waa waañu yow bi te jaay yow noo gis baax rek ah. Ah, xanaa fa sey ko nokkas ba mu saf rek ah. waaw kontaan nan nag yow ndey ñi ngi wax yow ngay sëgg ma yaakaar na man may sëgg nag Warna touch, na tëj. yow ndey mi ba ma ndax xam ne su ma wax ak yow. waaw ndey ndey ñu ah dañoo nekk ak yéen. ngeen bëgg uh-huh. lu ngeen jóg ñu nekk ci ak yéen ba dogal ngeen di ci seen bi ñu fekk leen ci ci ak nekk ak ci bi jeex ndax ko jar. waaw neex na ah yéen xoolal suñ cin suñ cin di leer rek <laughs> waaye yéen nogay jaay yéen yow yow jaare